بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi sant borom subhanahu wa taala di julli tey salmal ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ak i saxaaba ak njabootam ak képp képp ku topp seen njub ba keroog yàlla di àtte ay jaamam bu loolu weesee ñu xaar yàlla ci jotaay bii nga xamante ne jotaay yu jëriñante ak jëriñu ñi ñaan borom subhanahu wa taala lépp ñu ci niral yàlla na ko def mu nekk yoon bu muy fekk ci suñu ñi woote jotaay bi mooy coordination des musulmans de Grand Yoff et environ mu nekk ab conférence boo xamante ne dañoo tànn kenn ci suñuy borom yi xam-xam jël benn thème boo xamante ne njort nañ ni buñ fi jugee képp kenn ci ñun ku fi teew diñ ci jëriñu bal boo fi jugee di nga mën a jëriñaat thème boobu mooy la mission de l'homme sur terre ko war a xëy mooy abdoulaye si waa ñu xam ne loo xam ne dafa bon waa waaye lu jiitu ñu tàmbali bëggoon ñu rek leeral mbokk yi ne jotaay yu mel nii buñ ci toogee am na nuñ ci war a toogee am nuñ ci war a jëriñoo ba tax na ñu ngi ñaan mbokk yi ñu jàppalante ci suñu biir lépp loo xamante ne mun na gàllan ko wax sa bopp nga fexe ba bu jugee ci yow moo xam téléphone bi sone la moo xam wax la wala yëngatu yoo xamante ne léeg-léeg dina lor ñi nga xamante ne ñoom la nekkal beneen mbir bi mooy ñu ngi jéggalu dafa la ñu waroon tàmbale ci retard bi ku yàgg fekkee ci jotaay bi nga xam ne du suñu lu ñu xamee waaye léeg-léeg mbir yi mooy doxee noo xamante ne doo ko amee ni ñu ko bëggee waaye ala kulli xaal noonu daal la mbir yi tëre ñu ngi am borom subhanahu wa taala mu defal tawfiq kon bi jiitu dañuy jox Cheikhuna al imam Xasan Sarr moo ubbi ak misaal muhaawara ginnaaw loolu ñu jox ustaas mu tàmbali conférence am bu ñu demee ba treize heures et demi ñu delloowaat wax bi imam Xasan mu def ay taaliqaatam ay contribution ginnaaw loolu ñu jël li nga xamante ne moo ci xet ci ay question ak ay réponse buñ ci paree daal di julli daal di yeewi mbokk kon programme bi noonu lay tëree incha allah euh, kon duñ def lu dul jox yàq naa imam Hasan Sarr mu daal di ubbi jotaay bi hada lillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله ومن والاه mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ci xéewalam yi nga xam ne mënul si koo lim doonte ni bokk na ci daje bii mu ngi dajale ay ndaw yoo xam ne ñu ngi jógee ci fukki gox yu bokkul joxalante loxo ngir mën a am ndëgërlaay bu ñu mënee dund la nga xam ne mooy seen waaye it niñ a tasaare nga xam ngeen ne loolu bokk ji sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo di sant ñu jihaad ci aw yoonam jihaad boobu nag la xam ne moo koy def mooy kàttan ak xam-xam doonte ne xam-xam ba moo ëpp doole kàttan nga ndax gàttal lu mu rëy rëy bu ànduloo xam-xam njëriñam du bari kon dajale seen xaalis woote ak conférence loolu bokk na ci liy dooleel diine yàlla bu ñu xam-xam nekk na géej bu yaatu doonte ni la ne moom ngeen ci jël tey sant ko Cheikh Ibrahim bokk na ci fondement xam-xam ndax xam ngeen ni ñi ñuy tuddee ay xalaatkatu adduna di ay philosophe te ñu woon ak ñu mujj wax nañ wax yu bëri bind nañ téere yu dul jeex ci ñetti laaj yu màgg yu mos a itteel doomu aadama yi laaj bu njëkk bi mooy ñun fan lañ jógee ñii séeréer mboole seen dëppoo nañ ci ne daal ñun dañoo jëlee rek ci asaar gannaaw ba laaj ñaareel ba moo di ne waaw ñun bañ demee ba ñëw ci kaw suuf nag lan la ñuy def ci kaw suuf daal buñ delloo ci yéeféer ya téeméeri tontu wax nañu ko ca yooyu yëpp boo ko boolee nekkul lu dul daal ñun yàlla dañoo bind rek abasan dañ koy ñëw ku nekk la nga war a rek la rek la ko ba bis dee ba dee ñetteelu laaj ba waaw bu ñu dee fu ñu jëm mboolem yéeféer ya dëppoo nañ ci ni suñu dee dañuy dellu nekk poussière doonte ne ni ñi gëm diine ak bu mu a doon ñoom dañoo gëm ne buñ dee dañuy dekkal lan di itteel muy ñaareelu laaj ba te muy ñun lañuy def ci kaw suuf gannaaw ñu fi yàlla indi ki ñu gën a defal it mooy Cheikh Ibrahima bi nga xamee ni bokk na ñu ci wax rek lu bari ci yéen sabab yi da ngeen di gis dégg ay conférence yu ñuy def yàlla fépp ci Sénégal mi ngi ñaan yàlla wa nga xamee ni moom mooy ngërëmam toog nga lool nañ góorgóorlu ba bokk suñu borom wax ab yonentam na leen bégal daf na ko fa bashir ibad alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana déggee leen jaar yi nga xam ne bu ñu demee dañuy déglu kàddu ga gannaaw bu ñu topp la ci gën a rafet kon ku nekk ci ñun na jàpp ne man kat Cheikh Ibrahim Khalil jóge na ba ngaaw bu ngir wax ak man nañu def li nga xam ni Ibrahim Khalil Ndiaye bi jiitu wax na ko te mooy buñ ma ne nii góorgóorlu bàyyi waxtaan bi ku ci yor portable nga la waay bu ko fay ngir naka def silencieux ngiree ñu ñëpp lu mën a teewlu yàlla yàlla jàppale ñu ba daje bu muy daje bu barke buy jeexit yàlla na jeex ci ngërëmam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها الإخوة والأخوات asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen nemmiku bu baax di jiital ci nuyoo bi sunu bokk yi nu fi fekk muy al imam cheikh alxasan sarr wal imam mohamadul mansour ak yeneen bokk yi fi teew yépp ñu bokk liggéey bi di wétlikonte ak ñoom di nuyu it mbokk yi nga xam ne yépp wuy si nañu woote bi gannaaw bu ñu mbokk yi nga xam ne ñoo woote ñi wuy seeg ñi woote ñépp te kenn ku ci nekk wut ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala moo la tax a jóg yàlla nanu ko suñu borom tabaraka wa taala defal yàlla nanu nangul coono yi def yépp ngir sàkku ngërëmam ni ñu ko déggee danoo daja tey ngir bokk fàttalante ci bunt boo xam ne bu am solo la boo xam ne sax kenn waru koy umpule wala di ko fàtte ndax ku ko def rek sa dund duutu am sens duutu am benn njariñ ndax nekk fi barab te xamoo lu la fa indi xamoo itam loo fa war a def xamoo itam li nga def fu muy mujj yow loolu fu ko nit nekkee rek nekk boobu moom amul benn njariñ amul benn sens kon tey li ñuy waxtaane mooy al insaanu wa masuliyatuhu fi l ard doomu aadama ak aw sasam wi ñu ko sas fii ci kaw mu war koo taxawe muy responsabilité am wala nga ne mission li ko tax a jóg fii ci kaw suuf loolu moo ëmb lépp bu nit ki rafetalee ak xamam ca loola loolu dana ko yombal mu jéem caa taxaw kem kattanam waaye suñu borom tabaraka wa taala ci yërmandeem bàyyi wunu nuy sandale ak di tatone di jéem a xam li nu fi andi wala bu ñu ko xamee noonu koy defe waaye lépp borom bi tabaraka wa taala leeralal nanu ko ci yónni jëm yónni ay yonent wàcce ci ñoom ay téere ñu jàngale xam-xam ba waaye jàngale itam jëfe ga ngir ñu xam kon li ñu war a taxawee ci kaw suuf mission boobu wala responsabilité boobu mooy rekk nu jooxe amaanatul xilaafa muy ndénkaanul xuutaat li ñu borom bi tabaraka wa def ci kaw suuf responsabiliser ñu ci lu ñu war a taxawee ci kaw suuf loolee mu tudde ko al amaan kon taxawee al amaanatul kubra boobu muy ndénkaan muy kóoluteef gu mag googu nga xam ne ni ko suñu borom tabaraka wa taala waxee inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa xamalaha al insan innahu kaana zaluman jahula amaana boobu muy ndénkaan loolu loo xam ne dañ lay may sañ-sañu nga mën caa rafetal waaye man nga caa ñaawal itam du nekk rek loo xam ne dañ la fixé ci benn barab nga xam ne doo man lu dul loola te bindee yi ci des yépp boroom bi tabaraka ko taala noonu la leen def da leen a rek ca la nga xam ne moom la leen sant mënuñu koo wàcc doomu aadama nag lañuy ñu wul moom loolu mooy amaana bi waaye nag leeral nañ ko benn bu ca nekk ci ñaar yi ko séq muy li baax ak safaanu la baax waaye nag jox ko sañ-sañ ak man-manu mu tànn loolu moo tax mu diis lool borom bi ne asamaan yeeg suuf yi ak montagne yi ñoo gàntal nañu ne mënuñoo gàddu lool ñoom lañ leen fixé rek ndax ñoom daan lool gis na ci ñoom waaye mu ne nit moo ko gàddu nit nag ci na tiiram daf caa bokk tooñ gu bari te mooy dugg ci àq keneen daf ca bokk itam ci natiiram meloom ak réer loolu kon bokk na ci la tax moom mu nangu ko gàdd amaana boobu nag muy kóoluteef googu muy responsabilité boobu suñu borom tabaraka wa taala jox doomu aadama moom mooy cosaan mu ëmb mboolem lu ñuy jëf ci diine moom la imaam al-Qurtubi wax ci tafsiram ne al amaana taummu wa tasmul jamia wasaif ad-diin mu mu gën a yaatu xilaafa ndax xilaafa muy responsabilité bi ñu jox nit ci kaw suuf mu war a jëfandiku ci sañ-sañ bi ko fi yàlla jox day am rek defar diggante nit ñi amal ak maadute dàq tooñ ak yàq di digle lu baax di tere safaan ba yooyu yëpp ci li diine ëmb la bokk waaye nag diine ëmb na lu ëpp loolu mooy la jiitu muy defar pas-pas yi ba ngëm yàlla gu wér am dëggal li yonente yi xibaare te muy kumpa goo xam ne eggaguñ ca waaye itam nangoo topp nangoo tënku ci jaamu yàlla loolu lépp moom la al amaana amaana boobu muy kóoluteef googu ndénkaan loolu muy kóllëre gi nga xam ne doomu aadama jëloon na ko engagement boobu jëloon na ko ci boppam ba ñu nekkee ci aalamu zar nga xam ne boobu ay ferñeent lañu yu nekk ci aadama alayhi salaam ñu taxal nekkum suñu boroom tabaraka wa taala di boroom lépp di ki yeeyoo ñu jaamu ko jëloonu engagement yi itam ci ne danañ ko jaamu subhanahu wa taala buñ ñëwee ci àdduna moom la boroom bi wax ne wa id axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim durriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin ne suñ borom jëloon na ci doomu adama yépp te booba ñoom ñëpp ñi ngi ci aadama alayhi salaam mu yóbbaale mbooleem ñi nar a ci moom suñ boroom seedeloo leen ñu jël engagement suñ boroom laaj leen ni ndax duma seen borom ñu ne ah kay seede nañu ne yow rek yaay sunu boroom yaa nu bind yow rek lan war a jàpp ngir nee na li tax mu def loolu kenn bañ a amu lay ba mu ëllëgee yowmal xiyaam nga naan man dama xamul woon loolu kon engagement comme lañ ko jëlee yonent yi nag dañuy ñëw di fàttali di fàttaliwaat dige boobu ñu dige woo ak suñu boroom tabaraka wa taala moo tax suñu borom di tuddee alquran ak zikr ak zikr ak fàttali ndax dañuy ñëw di fàttali rek suñu borom nag tabaraka wa taala teral na doom aadama jox ko cër bu rëy mu ko waxee wala xad karram na bani aadam wa xamalnaahum fi lbar walbahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila nee na teral na doomu aadama jox na leen ay man-man ak i sañ-sañ ci géej gi ak ci jéeri ji mooy àdduna bi rek àdduna moom loolu la albar walbahr nee na wërsëgal na leen ci fi nekk ci yu teey nee na gënal na leen jox na leen ngëneel ci kaw lu bari ci li mu bind néewul ñoo gën waaye lu bari ci li mu bind doomu aadama ñoo leen ëpp ngëneel bokk na ci ngëneel loolu mu ko jox muy def xalifa fil ard ko borom bi waxee wa id qaala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa naxnu nusabbixu bixamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu ma la taalamuun fàttalil ba suñu boroom tabaraka wa taala waxeeg malaayika yi ne leen damay def ci kaw suuf xalifa buñ koo xam ne daf fiy nekk suñu boroom jox ko sañ-sañ ci mboolem li nekk ci kaw suuf mu mën ciy jëfandiku waaye nag fi ndigalul suñu boroom tabaraka wa moo ko fa teg muy mel ne ku ñu nomee ci benn poste rek poste ba danañ la leeral dañu yox lettre de service boo xam ne danga xam la nga fa war a def ak la nga fa war a def duñ la fa nommé rek nga daal ne moom fii lu ma neex lay def déedéet buñ la fa tegee dëgg la yaa fa nekk bu dee directeur yow la ñuy tuddee directeur wala yow la ñuy tuddee chef yaa xam tur wuñ la mën a tuddee waaye nag yaa nga fa nekk ci ndigalul kala fa teg ak lam la fa defloo boo ko wàccee rek yéyootoo faa nekk kon doomu aadama itam suñu borom da koo nommé fii ci kaw suuf ngir mu war a taxawee lim fi war a taxawee te wax na ko ni koy taxawee jox na ko lépp programme bi ni koy doxale waaye gis nga bi mu ko waxee malaayika yi malaayika yi dañoo tiit ci loolu ndax bi nga xalifa rek ñoom jéggi nañ ci ne kon dana am liberté bu mu am moom kooku fi def mbaa bàyyi te ñoom sañuñu loolu ñoom mënuñu lu may def rek lu ñu leen digal wa yafaluuna maa yumaruun ñoom dañ leen fixé ñu tiit nañ ne ku ñu fixé wul da nga jàdd ñoom loolu la ñu tiit moom ku ñu fixé wul rek ci yoon bi ñu xam ne sañoo ko wàcc may la nga dox may la nga jàdd bootul da nga jàdd moo tax ñu daal ne boo bu dee xalifa nga ko def rek kon yufsidu fiha danañ fa yàq boye sukkut dima danañ fa tur deret te nun ñi nga xam ne nag nu sabbixu bi xam ne ñoom dañ leen fixé ci sabbal suñu borom ak seen lal ko mënuñu ko wàcc kon day mel ne dañoo def ñoom seen bopp candidat wane na daal ñoom ñoo gënoon a mérito loolu nekk foofu ndax ñoom ñi nga xam ne seen lépp jaamu yàlla la suñ borom ne la inni alamu ma la taalamuun googu nag muy nomination boobu du aadama rek lañ fi nommé déedéet waaye lépp lu tokki ko ci moom humanité bi ndax ba malaaka yi wax yufsidu fil ard wa yasfiku dima jublu wuñ ci aadama rek mais liy tokki ko ci moom lañuy wax ndax aadama moom bi fi nekkee moom rek moom bi nekk ak njabootam kon yàq gu muy yàq ak deret ju muy tuur moom nekkagu fi waaye kon bañ ne aadama rek ñoom ñi ngi wax ak mboolem li nara a soqi ko ci aadama ci loolu ci lañ am tiitaange boobu xilaafa nag muy cër bi ñu jox nit fii ci kaw suuf duñ ko déggee ni ñuy déggee xilaafatul insaan anil insaan maanaam nit yor xilaafa keneen maanaam wuutu ko nga baatu xilaafa bi day firu wuutu bu dee ci diggante nit ak moroom ma wuutu lay teg waaye bu dee ci diggante nit ak suñu boroom moom du wuutu ndax suñu boroom absenté wut fàddu wut nga tax imaam ibnu taymiya rahimahullah di wax ne ci téeréen bi mu tuddee radd alal bakri mu ne wa haasa mawdiun xalita fiihi taifatun min annaas mu ne fii ci xalifa bii suñ borom wax ndax da koo def ci kaw suuf ci aadama nee na ñu bari juum nañ ci fa zannu anna allaha subhanahu wa taala yastaxlifu ahadan an nafsihi maanaam ñenn ñi jàpp ne suñu boroom dafa wuutal keneen ku ko remplacer moom liñ ko waroon a def lépp liñ ko waroon a taxawee kooka di ko def ñu jàpp loolu ñu ne aadama xalifa la boo xam ne dafay wuutu yàlla ci kaw suuf taxaw palaasam mu ne wax jooju ahlul xulul wal ijtihaad ñoo koy wax mu tudd ca ku mel ne ibnu arabi mu ne ñi nga xam ne dañuy wax ne doomu aadama day dem ba melokaanu suñu borom tabaraka wa taala nekk ci moom ñi yor pas-pas bu mel noonu muy waxdatul wujud di littihad wal xulul mu ne ñooy wax lu mel noonu mu ne wa hada jahlun wa kufr nee na loolu réer la kéefër la ndax inna allaha taala huwa allati yaxluqu kulla shay wa yudabbiru amra samai wal ard bin bind lépp te mooy doxal itam mbirum asamaan ak suuf bàyyiwu ko kenn walladi fi samaai ilah wa fi l ardi ilah wa huwa alxakimu alalim moo bind aadama moomu bind mboolem bindee fi mu ne wa huwa shahidun la yaqi moom ku teewe la ku fekke la du fàddu ni mu ko waxee fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna gaibin nee ñi ma yónni woon mu yonent yi nu ñu jotale danaa laaj ñi ma yónnee woon ci ñoom muy nit ñi nu ñu jële li yonent yi andi waaye nag danaa leen nettalil mbir ma man ci sama bopp wax leen lépp ndax absenté wu ma woon wa ma kunna ghaibin kon du xilaafa goo xam ne kii buñ ne diw mooy xalifa diw diw moomu nekkatu fa te itam du lam ko fa bàyyee rek lay doxal léegi sañ-sañu boppam moom lay doxal dañ lay war léegi mooy rek pouvoir bi léegi ndax kama fa wuutu mënalatu ko dara mënu ko faa jële mënu koo régler ca la muy def mënalu ko ca dara kooka daal dem na dem na moom nag toog na place am moom itam di doxale na mu bëgg doxale loolu la xalifa yi ci diggante doomu aadama morom ma xam ne da nga loolu nag day wuteeg xalifa ci diggante doomu aadama ak suñu boroom bu defee ab xalifa mooy da ko faa teg ni ma waxee sànq da koo nomee ci poste waaye nag moo la jox la nga fa war a doxal te itam mi ngi xam lépp te itam dana la régler ci lépp jox na la programme ba nga fay def bu caagee ni yaay ñëw ne maa fi toog léegi nu ma neex laay doxale déedéet dafa am nu la tëralal moom la wax ci làmmiñu Suleymaan wax ko ci làmmiñu yépp doom ju baax rabbi awsi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya programme bi mooy lan wa an a'mala salihan tarda waaw kooku mooy programme bu doomu adama yàlla may ma ma sant xéewal gi nga ma defal santaale xéewal gi nga jaarale samay wayjur waaye na nga may ma ma mën a jëf loo gërëm kon mission bi fi ñu la teg li nga ci war a def lépp ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala la war a doon ndax moo la fi teg wa an amala salihan tarda loolu Suleymaan moo ko wa adxilni bi rahmatika fi ibadika salihin waaye mu wax ci mbooleem nit ñi nit ku baax hatta isa balaxa asuddahu wa balaxa arbaina sana qala rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin kooku moom insaan la wax jëpp insaan bu ñu yar yar bu baax jaarale ko fañ koo jaarale su demee ba mat mu kàllat programme boobu lay teg ata isa balaxa asuddahu wa balaxa arbaina sana te foofu la nit di ñore dëgg fa lay wax ne rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan nga may ma ma mën a sant xéewal yi nga ma defal yépp an askura ni'mataka allati an'amta alayya bu boobaa yëg ne ne lu mu am yàlla moo ko ko jox fekkee xam-xam la am ndax kuy am ñeent fukki at moom daanaka li nga doon sàkku léegi rek doxale ci des mais li nga doon wut moom bu dee njàng njàng ma daanaka jeex na bu dee métier la ma mën nga ko mu ne commencé doxal moo ci des nga nag yàlla maa ngi lay ñaan nag nga may ma ma mën a jëf lu baax loo gërëm waaye daal di sasu itam nag war a former moom it njaboot bu koy buy ne ci suuf di ñëw moom itam wa aslih lii fii yi te nga baaxalal ma sama njaboot kon loolu mooy mission bi moo tax gis nga sahabatul kiram suñu borom tabaraka wa bu leen di melal tout seen seen objectif final mooy rek am ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala lil fuqaraa il muhaajiriina alladiina min diyaarihim wa amwaalihim ndax la yabtaxuuna min allahi wa ridwaana loolu la ñuy wut moo leen jaral ñu génn seeni kër tàggoog seeni alal muhammadun rasulullah walladina maahu asiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjada ndax lan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana loolu la ñuy wut ngëneelul yàlla ak ngërëmam mooy objectif kon man ngaa daal di gàttal ne kon mission doomu aadama ci kaw suuf daal ci fi yàlla jàpp nalaw yombalal ko nu mu fiy nekkee lam ca war a wute nag mooy lu koy may ngërëmul boroomam tabaraka wa taala ngir bu delloo ci moom ndax nee na kat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun kuy bég bégal ci ngëneelul suñu boroom tabaraka wa taala tawfiqam bu mu la defal ak yërmandeem moo gën mboolem lu ñuy dajale ci àdduna ndax àdduna moom loo ci dajale yi da nga koy bàyyiwaat mi ngi mel ne bureau bi ngay liggéeyee rek matériel bi nga fekk ci bureau bi taabal jeeg sees yeeg yooyu yëpp moom dalay yombalal liggéey bi mooy booy def doo ko yóbbu buñ la affecté doo yóbbaale ba moobali bureau bi fa nga koy bàyyi mboolem am ami àdduna yii nag moobal di bureau la rek pour nga mën ci nga mën a liggéey waaye loola bokkul ak liggéey bu nag waaye moo lay dimbali nag pour nga liggéey xilaafa nag baat bi itam kon day am ñaari sens bu dee diggante jaam bi ak boroomam al amaana lay fekk mooy koolu téef ndénkaan li ko dénk ci kaw suuf mu war koo taxawee ku dem nag keneen day ñëw ba tax na dana firi itam wuutante ci seen biir doomu aadama wuutu morom ma doomu aadama bu dem génération bu jàll beneen ñëw ñuy wuutante rek di dem moom la ne wa huwa allati jaalakum xalaa'ifa al ard xalaa'ifa al ard yéenay wutante ci kaw suuf wa rafaa baadakum fawqa baadin darajaat li yabluwakum fii ma aataakum mu leen di def ngeen di remplacente ñu dem rek ñeneen ñëw lu nekkoon ci say loxo ba yàgg mu nekk ci loxoy ñeneen ngir nee na nag mu nattu leen ci lii mu leen jox moyen yim def xéewal yim def ci kaw suuf nattu leen ci ba xam nu ngeen koy doxale li mu ko waxee inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza ci kaw suuf maa ko fi def ko suuf ngeen nattu leen ci nag ba xam nu ngeen ciy taxawe ba xam kan ci yéen moo gën a rafet jëf ayyuhum ahsanu amala waaye bis dana ñëw ma del siwaat mbooleem li ma defoon ci kaw suuf lépp ma jële ko fi mu dekkaat pàkk bu ne dandal dara du ca nekk wa inna la jaa'iluuna ma alayha sa'idan juruza pàkk bu ratax ban nag bu dara nekkatut suuf si noonu lay mujjee walillahi miraasu samawati wal ard mu dellu waxaat ne summa jaalnaakum xalaa'ifa fil ard min baadihim gis nga def naa leen ngeen di wutante ci kaw suuf ci gannaaw ñi leen fi jiitu woon li naan bor kayfa taamaluun gis nga kon li ko wutee xilaaf ak nit nit moom mënta xool loo fiy def ka nga fi wut moom dem na yoonam même sax bu dee dund sax ñu tënk na président ba fa jógee président bi fi ne ka fa jógee lu mu mën ci moom mu ne moom la remplacé fa mu toogoon la toog waaye jàggi ni moom la fa toogal bokku la gis nga kii nag ne moom li na suñ borom ne li nan dura kay fa taamalu man maa leen fi teg ngeen di wutamte may seet ba xam lu ngeen di jëfandikoo dellu waxaat ne fa kaddabuhu fa najjaynaahu muy wax ci noox alayhi salaam wa man maahu fi lfulk wa jaalnaahum xalaa'if wa agraqna alladina kaddabu bi ayatina fandur kayfa kaana aqibatu lmundarin waaye xawaayit yi bu koy wax nag xalifa bi toujours mooy ki taxaw ci mission bi di jaagee ni nit ñëpp ay xalifa lañ déedéet ni jaay noon tel abdi xalifatan gis nga daf koo nakiraal ñi fi ne di taxawee li mu santaane ñoo ñooy xalifa yi ndax gis nga mu ne wa jaalnahum xalaa'it wa agraqna alladina kazabu kon ñooñu xalaat du ñu xalifa ñoom def naa leen fi ngeen wuutu ma labal ñi nga xam ne moom dañoo weddi di ayatina fantur kayfa kaana aqibatul muntarin yéen ñi ko gëm nag topp mission bi leen di tax a ñëw ngeen nekk fi ma baleen ngeen di doxal man daal ku doxalatul daal mu folli la bàyyi fi ñi nga xam ne ñooy doxal fa najaynaahu wa man maahu musal naa noox ak ña ànd moom ca gaal ga parce que ñoo ñoo gàddu amaana bi amaana bi mu dénkaane woon ñoo ñoo ko yore ba léegi soo ko wàccee nag dugu nga ca zaluman jahoolaaja waaw ñi nga xam ne respecté suñu amaana bi muy ndénkaanul yàlla li seen bopp seen coobare lañ fiy doxe ñooñu ñoo dugg ci tooñkat lañu ñu réer lañu bu dee wax ne huwa alladi jaalakum xalaa'ifa fil ard fa man kafara fa alayhi kufru wala yasidu lkafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yasidu lkafirina kufruhum illa xasaara def naa leen ngeen di wutante ci kaw suuf kenn ku nekk nag nekk nga candidat pour nekk xalifa te mooy taxaw ci santaane borom bi tabaraka wa bi tax mu andi la ci kaw suuf ñëpp ko doon waaye nag gis nga mu ne fa man kafara koo xam ne génne nga ca sa bopp moom weddi fa àllay ñu kufru kéefëram ci boppam rek lay jël wala yasidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta mu ne ñiy weddi seen weddi googu du leen dolli lu may ab sànje ak mer fa suñu borom tabaraka wa taala wala yasidul kafirina kufruhum illa xasara borom bi dellu wax ne waada allahu alladina amanu minkum li ngay dégg ne kon xilaafa gi ñi koy yore muy xalifa boobu mu wax mooy ñi tegu ci yoon bi wa'ada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum allati irtada lahum wala yubaddilannahum min